Thank <laughs> you. Toujours dans votre actu du jour de ce vendredi 10 mai 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñu jógee foofu dañuy dem aéroport international Blaise Diagne ginnaaw bërki démb ci alxames bi bii nga xamante ni benn avion Transfer, bi nga xamante Air Sénégal Moko ko affrété woon mu yeb lu toll ci 78 passagers ñu waroon dem foofa ca Bamako moo daal di wàcc li nga xamante ni piste bi mu éviter de justice li nga xamante mën nañ ko pire benn crash en tout cas lépp loo d'Al ni daal jàpp nañ ko ci aéroport international Blaise Diagne ginnaaw bi ko juillet ginnaaw bi nga xamanteni avion bobu wàcc na piste bi daal di nañ koy ubbiwaat à la navigation aérienne suite ci li nga xamanteni moy fermeture bi nga xamanteni ne lu ko waraloon du dara ludul avion bi nga xamanteni Transair moko mom mu daal di wàcc piste bi te kiko ko affrété woon di li nga xamanteni moy Air Sénégal destination Bamako la woon mu donon juróom ñenti fan ci wéru mai ginnaw bi nga xamanteni 1 une heure teg na ñeenti euh, fukki mini simili ak ñeent dama bëgg ñi sétani vidéo bi dellu ci waat. tous les passages vous êtes ils étaient au point de 73 ans. Hein? non beaucoup beaucoup parce que même j'ai j'ai vu même une dame qui était tombée là-bas. Je l'ai vu là-bas. Oui. Là je l'ai amenée. Ouais. Mais, mais mieux. Parce mieux... Elle, a sauté, elle a sauté de l'avion. Parce que c'est nous-mêmes qui, a cassé, qui, qui ont cassé la fenêtre qui est ah là-bas. Là. Elle, a sauté. Ah, oui. Elle, ouais, ben, elle a dit qu'elle a marche. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monsieur, vous faites partie du vol Oui. Mais on est en train de vous secourir, comme ça vous allez rejoindre les bus. kon yakarna ni ñoo seetaanandoo vidéo Bobu nga xamanteni ni muy avion bi nga xamante éviter na de justesse li nga xamante ci piste AIBD ginnaaw bu mu wàccee piste bi avant ñuy décoller gis nañ daal soixante-dix-huit passagers yi gars di tëb par benn benn ci fenêtre bi kii nga xamante ni mooy copilote bi daal di am ay fracture gis nañ daal fukki nit ak benn su naawoon ba ci kaw daal di écraser tas je crois kenn du fa for benn nit en tout cas muy li nga xamante ni daal ay défaillance technique la yoo xamante ni noté nañ ko ci li nga xamante ni mooy compagnie transfert ki ko affrété nag du kenn ku dul Air Sénégal Air Sénégal nag ñëpp xam nañ depuis ngi def seen kéemtalaay kattan ko jël pour doon ay patriote mais dañu gis ni que daal kii di Air Sénégal ba pour mën décoller ndax té noté nañ ci depuis ko ñu créé ko ay retard de vol ay euh, vol yo xamante da nga wara a ñibbisi doo gis vol en tout cas do gis ben personnel bu la ñëw assister duñ la jox ben information en tout cas faute de gestion la ginnaw bi nga xamante ni changé directeur à maintes reprises lii di Air Sénégal dal soudé mënul assurer lii di liaison aérienne bi nga xamante ne sénégalais yi bëgg nañ ko ci moom je crois que war nañ ko mën a arrêté ñu xool aussi avions yi ndax ay avions yu baax la ndax avion yu bees la mais lépp loo xamante ne daal ay affaires techniques la moo causé loolu en tout cas li nga xamante ne daal mooy vidéo bi loolu lañ gis mais ki nga xamante ne moo nekk ministre de tutelle bi ak autorité aéroportuaire yi ñoom ñëpp dañuy jël ay dispositions jëmale ko daal ci assister bépp passager boo xamante ni blessé nga ci accident boobu ginnaaw bi ñu transporté ñenn ci ay structures sanitaires yoo xamante ne ñoo nekkoon de la place ñeneen daal ñu génne leen ci ay idem yoo xamante ni accident bi tey suñu sukkandikoo dal ci lo xamanteni accueillir nañ ci ay hôtel ci instruction ki nga xamanteni moy le nouveau directeur général du Cheikh Bamba Dièye dal dina mobiliser li nga xamanteni moy équipe bam pour ñu assister bép passager bo xamanteni dañ la impacter ci ay kits alimentaires yo xamanteni tay dañ ko distribuer ci ay usagers yo xamanteni ay assistants la yo xamanteni ñu ngi leen koy offrir pour accompagner képp ko xamanteni passager nga nekkon ci vol bobu nga xamanteni mo waron dem fofu ci Bamako mu éviter de justesse linga nga xamanteni manam moy le pire aéroport bi dal nañu jàpp ni ginnaaw bi ñu ko tëjee ci diiru ay waxtu ubbiwaat waat nañu ay bunta mu doon benn système d'exploitation opérationnel bi nga xamanteni ay vol mën nañu effectuer li nga xamanteni moy ay compagnie nationale jëmele ko ci ñenn ñi nga xamanteni ay international la en tout cas moy li nga xamanteni dal daal yéen koy gis nonu moy directeur bi di Cheikh Bamba Dièye ak le nouveau ministre du tutelle di kii di El malik Ndiaye waye El malik Ndiaye lañuy ñuy sukkandiku ginnaaw bi nga xamanteni nomé nañ ko ministre des transports terrestres et aériens El malik Ndiaye bu mu ñëwee lenn moo ko njëkk a ci ministère am moy ay accident yu melni ni Tulloog Mali gis nañ ay accident routier yu dul jeex Yam Yong gis nañ fa Caajaay gis nañ ko fi nga xamanteni moy mooy autoroute APHB, péage bi AMG ci EMG euh, gis nañ ko fi nga xamanteni moy Technopole gis nañ ko en tout cas El Malik diaye mi je crois que mon dafa wara démissionner lu El Malik Diaye wara démissionner ndaxte bi mu à l'opposition accident yi mon fils nga xamanteni moy 6 six kilos mom El Malik Diaye da doon publier ci page Facebook que qui di Mansour Faye dafa wara démissionner parce que bu mu ci ministère des transports ay accident yu bari ñom mais El Malik Diaye yo biñ de la nommé batay dafa melni ni que bor bi nga Mansour Faye mom la la yalla di fay motax mané souvent da ngeen di ren mais bés bu leen yàlla nattoo ngeen xam ne lépp dëgg la kon El malik Ndiaye lenn la gàttandoo Sénégal ay bakkan yu bëri yu ñàkk ay grave blessé ak li nga xamante ni maanaam mooy accident yu dul jeex accident routier accident avion en tout cas mosuñu ko barewuñu luñ koy gis fii ci aéroport euh, AIBD qui di El Malik Ndiaye je crois que moom moo war démissionner ni ko Olof Ndiaye di waxee yéene nek la borom a cay fanaan li doon yéene Mansour Faye yakarna ni ne bu mu nekkee ci bop ministère des transports aériens et terrestres yalla loolu la fay motax ñu né yéene nek la borom a cay El Malik Ndiaye nak je crois que war nga am ce courage en deux mains comme ni nga amé won courage du temps de l'opposition posté sa page Facebook Mansour Faye da wara démissionner parce que y a trop d'accidents man la El Malik Mansour Faye nekul ci talibi Mansour Faye du pilote Mansour Faye lenn le mën rek joxe ay consignes xalé yi nag suñu leen yarul jox leen auto ñuy def lu leen neex kon ab bépp ministre boo indi lu mu doon kàngam mënul tere accident yi li tax a tere accident yi maanaam mooy ñu jéem a arrêté lii nga xamante ne mooy indiscipline bi yaraat xale yi xool code de la route bi nuñ koy defee en tout cas muy li nga xamante ni am na foofa ca crash aérien bi